ñoo ngi toog jamono ji di xaar ñu waxtaanee li nga xamante ni fi indi di jiital tamit ci nuyoo bi suñu PDG di Matar Diop Soubatel ah, li nga xamante ni moom mooy yónni depuis maa ngi fi pour doxal nga xamante moom la bëgg ma àndi ceeg staff yëpp li nga xamante ni ñoo nekk kaw la dañoo woote parce que depuis ci suba média bi ñoo transféré li nga xamante ni ah, Euh, signature préfet maanaam euh, li nga xamante ni mooy notification bi nga xamante ni bind na ko pour xamal ni ne ah, may ñu pour ñu def li nga xamante ni mooy concert concert si Saloum bi nga xamante ni moom la Sidi Diop waroon tëgg fii ci Cœur de Ville de Kaolack ce 11 décembre 2021 muy concert bi nga xamante ni Sidi ñëpp xam nañ yëg-yëg bu mu am ci Saliou yëg-yëg bu mu am ci Kaolack ba nga xamante ni dafa jël benn morceau jagleel ko Saloum Saloum yi et je précise que commencé wu ko Bercy Saloum bi commencé wu ko Saloum kase ndax xam na nañu ay fan yu génnoon ci ginnaaw defoon na Bercy Dakar mu nekk benn concept boo xamante ni day dem ci région bu nekk sargal ko def fa Bercy voilà donc muy concept bi nga xamante ni depuis Dakar la ko commencé muy Bercy Dakar bi nga xamante ni moom la defoon fële ci Médina alors mu génn soow boo xamante ni Saloum Saloum la ko tudd euh, ñu ne balaa ñuy dem ci beneen région ñu ko def berci ak région ba nga xamante ni fa la ñu war a dem ginnaaw son bi génn na dañuy def Bercy Saloum et loolu nag suñu objectif nekkul defante nekkul daal wax dañoo nekk ci yoon di dugg ba tàmbali ci benn région wala wër région wu Sénégal yépp mu am coïncidence ak événement euh, mu bëri bruit et c'est normal mu bëri tur bi ndax Sidi ku ko gis xam ne wax dëgg neex yàlla xale la waaye nekk na ci ay loxo yu wóor bi nga xamante ni gis nañ ci moom évolution bu war a tax ñu war a yaakaar ne tension dafay am mais nag doxuñu ci tension doxuñu ci fitna doxuñu ci xaajale doxuñu ci xëccoo dafa di rek buggoon dëggal sénégalais yi de manière générale dëggal kaw la yi de manière particulier loolu duggaloon ci ñuy organiser Bercy Saloum bi préfet nag dañ koy sant dañ koy gërëm ndax mooy suñu kilifa mooy kilifa dëkk bi bu bëggee dara dañ ko ciy topp ànd ak moom ba mu neex ñun bu ñuy ñëw c'était pour jàppale ko ci liggéeyam gis liggéeyam bu muy def ñu apprécier ko bëgg ci ànd ak moom ñun jàpp nañ bu jëlee décision mooy décision boo xamante ni mooy gën ci moom gën ci gëm ci ñëpp ndax ay jullit lañu dañuy nangu dogal mais nag je précise nax coow daf cee bari woon lool wax ji bari woon lool naan dañoo duggoon ñëw pour indi fitna jële ko Dakar indi ko kaw ñun doxuñu ci mu noon loolu la rek Dakar la gënoon neexee mënoon nañ ko defee Dakar mais nag lu mënta ñàkk foog mu am wax naa ko sànq tout à l'heure ci samay propos euh, wax naa ko léegi tamit également nuyu nañ monsieur le préfet di respecter décision rek moo mën a am euh, di wax nag li am am na may ñu pour ñu tëgg la onze waaye jàpp nañ beneen date muy le huit janvier incha allah dinañ tëgg Bercy Saloum bu ñu prévoir dinañ ko def ba def lu ko raw incha allah euh, dinañ ko defee fii ci cœur de ville de Kaolack euh, di dalal xelu sénégalais yi di dalal xelu Kaolack waaye di leen wax ni autorité yëpp pratiquement jundoon nañ seen billet euh, tey xale yëpp préparé woon nañ bës bi jënd seen ticket amul benn changement ne ku nekk téye sa ticket autorité yi déggante nañ sànq ci suba ñoom ñëpp maintenir nañ seen ticket yi nga xamante ni moom la ñu jënd incha allah comme j'ai dit tout à l'heure Bercy Saloum bi luñ ca prévoir dina am incha allah date bi moo reporté ñi nga xamante ni ñoom lañ ci àndaloon doon liggéey muy artistes yi nga xamante ni kale woon nañ ak ñoom ba pare également ñoo ngi continuer di ànd ak ñoom di liggéey donc changement bi fen rek la ci date le onze bi yóbbu ko ci le huit janvier donc loolu laa amoon pour wax euh, di remercier nag nga xamante ni ñoo nekk kaw la jàpp ci liggéey bi loolu euh, fii fii lañu yónni mais kenn bàyyiwu ma ci wax dëgg ndax la damaa nekk ci ginnaaw rek baleen ñoom ñu jiitu euh, su ma limee nag damay juum bu ma bëgg tudd tuur waaye remercier naa kaw la quoi yëpp amul seen fay bi baax donc lii laa amoon ci kàddu yu ma doon yëkkati euh, bu fekkee am na ay question yoo leen posé le temps may jox alelo boo leen amee question yoo leen laaj waaw waaw benn par benn ah. mhm. euh, mooy li ma wax sànq ñun dañoo am planning bien déterminé dañoo def Bercy nag xamuñ ko tëgg ak ko tëggul ndax planning la ñu am Bercy Sénégal yëpp lañ ko balaa ñuy dem incha allah ci Bercy bi donc def nañ Bercy Dakar on s'est dit que ni le 11 décembre date bu baax la pour Kaolack dañuy def après nag du ñàkk ne après ngay yëg ne ah Bercy Saloum tamit am na beneen bu njëkk ba du ma ne yëguñ ko parce que bu njëkk ba amoon mais ñun suñu bopp dañ koy jàpp yëguñ ci woon donc loolu moo loolu mooy réponse bi ci question bi. ñun du ñu fuuralkat euh, suñu amutoon lu concret man du ma bàyyi samay activité Dakar ñi nga xamante ni wax dëgg na yàlla bari nañ lool ma nekk di gérer beaucoup de choses à la fois nekk bokk ci tànk label bi di Subatel mais ñëw le premier le trente ba léegi ma toog fii et gis ngeen nu ñuy def Kaolack gis ngeen communication buñ ci gis ngeen xaalis bu ñu dépensé gis ngeen affiche yu ñu def gis ngeen spot yi daw ci biir 2STV Ah, loolu ay million ay millions nag duñ ko fuural parce que dëgg ndax yàlla bu doon fuural rek duñu yëkkati ay millions pour fuural ko parce que amoon na feneen fu mu xaj ah def nañ lu ñu war ba ba ñuy jot nga xamante ni mooy notification préfet donc du ci ñun ci borom réew ci def nag li ay ndigalam donc loolu la fuuraluñu ñëw nañ ko def lu ñu war def nañ ko moom wax na lu mu ñu ànd ca lii la benn autorisation la jot muy rejet bi nga xamante ni moom la ñu am loolu laa jot ci papier comme notification papier bi ma jot rejet moo ci am yi jot nañ ko avant-hier mais bien sûr loolu publier nañ ko def nañ motif Euh, comme li ma wax sànq rek préfet nit ku baax parce que boo xoolee peut-être tension bi communication yi nit di tenir que ni coow day am diggante ñaari artistes yi nga xamante ni tey ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay kenn xuloowu ci kenn xeexu ci ku nekk yaa ngi sa yoon di liggéey kee moom ci yoonam di liggéey kee moom ci yoonam di liggéey peut-être nag préfet bugul li nga xamante ni mooy yàq dëkkam renseignements généraux yi tamit ñoo leen di wax ay affaire que ni lii peut-être buñ ko defee mën na indi tension kaw la Ah, fekk na loolu yëpp amul ci li nga xamante ni ñun loolu lañ prévoir ndax yaakaar naa ni ku nekk mën nga bay sa waar ku nekk war nga mën a lekk sa sa ku nekk publicam du benn Sidy ak publicam keneen ak publicam donc ñun loolu moo nekkoon suñuy tànk yaakaar naa xalukuwaay yi dañoo civilisé xalukuwaay yi dañoo set dañoo am personnalité ku am envie dem Sidy Diop da ngay sangu ba dem toog Sidy wayal la nga dem ku am envie tamit dem da ngay dem sangu ba mu set dem toog foofu ñu wayal la nga dem sa yoon donc on on est assez mature pour def li nga xamante ni mooy mooy indi tension ci dëkk bi na wax na ak sànq tout ñun papier bu ñu jox rejet moo ci benn papier lañ jox benn papier man maa jël papier rejet moo ci motif yi publié nañ moo di ah trouble à l'ordre public te mooy li ma waxee tout à l'heure fexe bu sañoon dëkkam tension du ci am parce que loolu lay jàpp ne tension war na mën a am ci dëkkam te bëggul loolu am donc loolu moo am comme motif ci affaire bi Nabou donc ñun benn papier lañ jox muy papier boobu papier boobu parce que lañ loolu lañ jox comme papier bu concret effectivement Nabou loolu waratoon nuyu parce que sénégalais yëpp ko doon xam yow boo xoolee tey xam nga jóge ñëw yaa ngi jóge ba ñëw ñeneen ak ñeneen ñoo ngi di jóge ay Gambie yi ñoo ngi di gis fu nekk ci région Sénégal yaa ngi am coupe pour ñëw xool li nga xamante ni moom moo nar a am kaw te Nabou di l'ai dit économiquement parlant économiquement parlant dafa naroon doxal Kaolack et man j'ai dit ma ne Kaolack dafa li tax may sonn ak li tax ma ci doon wax Kaolack bi naroon sukkandiku ci culturellement économiquement parlant auberge yi naroon dox dawaka ci Jakarta yi gis ci seen bopp suñu yaay yi jaay ci marché yi pareillement ñeneen ak ñeneen gis si seen bopp tey jii man loolu moo ma doon neex presse bi seen chaîne yi dox donc tey loolu bu demee ba mu yàqu tamit comme j'ai dit tout dañuy sant yàlla xam ne moo gën ci ñun ñu nangu dogal nag ay jaam lañ dañuy nangu dogal waaye yow gisante wuñ ci loolu maa yow gisante nañ mais voilà maa yow gisante nañ man avant may ñëw le premier avant may ñëw le premier ñëw naa fi ba mu ñëwee dem naa fi est nga xamante ne ñoo nekk kaw yëpp je pense à mi sax di ko ne def communauté yeneen presse yi nga xamante ne ñoo nekk kaw la du ma du ma du ma du ma lii mais ba ma ñëwee pour def étude du marché déjà man kaw la croise la liggéey moo ma yóbbu Dakar ñëw naa dem naa ca presse yi ma war a ma demee tamit ku nekk wax nga ma sa tarif accepté naa ak yow liggéey ak yow moom mii ma laaj question bi ñëw nañ pour defal ma interview ma accepté ko man sax maa leen jiitu ca place ba mu ba interview ba du mu ñàkkee amee ba tey kon question bi <laughs> ce n'est pas yaakaar naa du yow yaa war a question boobu ah parce que ñëw naa ba foofu defaloo ma interview ñu jàppaat jour gisuma leen donc presse locale bi ñun ñoom sax lañu wax dëgg lañu gën a valoriser parce que xeebaate moom baaxul ci ci ci ci dara eh, presse yëpp a yam wax dëgg na xeex presse yëpp a ku ñu ci soxla rek dinañ la wuy si incha ñoo ngi ñoo ngi Kaolack ba léegi eh bi moo changé mais Subatel Subatel mu ngi Kaolack ba léegi communication commencé na daw dee ñu am rejet bi commencé na daw ci date bu bees bi nga xamante ni mooy le 8 janvier vingt incha allah fii ci biir Kédougou Sidi day def communication Sidi day def communication communication bi luy continuer la c'est-à-dire bu fekkoon liste bi tey lay tey lay jeex mais tey la ñu commencé waat sax gën a yëngal que jour yi nga xamante ni ñoo nekk ci ginnaaw communication yi mosul arrêté comme j'ai dit tout à l'heure na ku nekk tey sa ticket affaire bi le 8 janvier la et di ngeen gis suba teel bu bees incha allah. olof day wax ne bëri pexe juba ko gën jub moo ko gën sëb la ko bënn nga sa biir gis nga bul naxante. bu naxante jibile yu ñuy jibile di wane am na ndam yooyu ñàkk bopp la waaye du ndam dafa am yoo xam ne aw na fi barke de moo njaay bay tabaski fàtte xaju fi yéen ñi nekk fi yëpp fekkee ngeen ko ak yeneen ak yeneen yoo xam ne am na si réew mi yoo xam ne du fii na amee Kaolack ak feneen ak feneen yoo xam ne am nañ ko te kenn ki la si ay drapeau yu ñuy wax si ay saag yuy ñuy si ay affaire yoo xam ay fecckat yi fóonante ak ay yoo xam ne ñëpp teg nañ seen bët tey suñ gisee tey Kaolack waaye ak sénégalais yi di am ñoo xam dañ leen di tuumaal ñu naan am naam amut loolu ñoom la concerné ñu concerné wuñu lu ñu concerné mooy teel bi indi fi Sidi Diop doomi dëkk bi la buggu dëkk bi di jëriñ dëkk bi nekk fi man maa ngi yor benn association boo xam ne ànd suqali Saloum depuis six ans Matar Diop Subatel moo koy financé si ay actes yoo xam ne ay actes yu rafet si éducation si santé si environnement si sport xale yi nga xam ne suba teel mooy ku yor label bii Sidy Diop nekk xale yi nga xam ne ñooy ñooy jël prix yu gën a baax seen école yu nekk at bu nekk jox leen ay ay prix yoo xam ne yu mucc ayib ay ordinateur ay yoo xam di leen fayal seen ay jàng yu ko dalee si si primaire ba secondaire di jël ay climatiseur di ko def si jumaa yi fii si di jël ay kër yoo xam ne amul toilette mu koy jël ñu koy recensé mu koy tabax te yàlla ta xay tabaski di dugg si dëkk bi di jël ay nit di leen yóbbu Mbàkka soo demee Touba ndooro nga dem Medina Baye nga dem new la ñu seen foofu yëpp mu jël di fa dugal dooleem ak feneen SOS ak feneen ak feneen foo xam ne si Kaolack fii te politiciens ñoo gën a bëri wax ak opérateur yi ñeneen ak ñeneen te musut koo wax tey dafay baax ñu wax ko parce que tey am na loo xam soxla na ko intoxiqué neen wax ay wax ay yàq di wax ay wax ñun lu ñu bëgg mooy ki nga xam ne dafa bëgg dëkk bi di di liggéey dëkk bi Subatel su fi indee ki nga xam ne mooy Sidi Diop Kaolack faay bugg leen ko mu ñëw fi si yar ak teggin góore di def fi góor ñu bugg ko mu nekk ndaanaan boo xam ne ñu soxla nañ ko si dëkk bi Kaolack faay bugg ko parce que ko fi Subatel indee ay saasaay bu ko taxaw yàq ko wax dëgg neex yàlla nag duñ xalab suñu bu ñaawul bi na xam ne préfet bu baax la nit ku baax la nit ku am yar la nit ku am teggin la soo gisee tey mu def lii kat ñaari njabootam ñoo tase parce que préfet moo njabootu dëkk bi mu bañ mu bañ ay attroupement wala yooyu noonu kat ñëw kat ndax saay parce que bu mu ñëwee ñi buñ ñëwee wax ak moom tatagal na leen teral leen wax ak ñoom ci waxi kilifa préfet jërëjëf gàcce ngalaama tey su la neexul nga def leneen ay embouteillage am fi waaye bés bu nekk bés lay xaar suñ tey def mu neex kawla quoi ñëw ñëw nekk si jàmm yàlla yàlla yàlla musal ñu seytaane parce que am na ñoo xam ne seen groupe bi groupe bi la te yàlla si ñoom wax dëgg neex yàlla suba teel gàcce ngalaama tey suñ demee ba ñoom ñuy jubile wax dëgg neex yàlla ay waay am na ndam ay am na ndam gàcce ngaalaama Sidi Diop gàcce ngaalaama suba teel lu ñuy wax na mooy suba teel mu su fay jóge suba teel mu ngi fi suba suba teel mu ngi fi ngoon mu ngi fi guddi mu ngi fi bëccëg di liggéey liggéeyam am na bu ñu ñëwee léegi rek def nañ fi ay consultation gratuite yoo xam ne suba teel ko def te waxuñ ko def ko sama koñ mag ñu fa nekk ñëpp génn ñuy ñuy ay ñoo xam ne ay mbiri bët la ñii ay mbiri ay mbiri xool ay ñii ay mbiri leneen mënu koon médiatiser waaye yàlla moo tax mu koy def jël ay jël ay équipe yoo xam ne jël leen leen si wàllu sport mu jël leen indi leen ay équipement ak yooyu noonu wax na ko yàlla tax mu koy def ak yeneen ak yeneen si volet santé lu muy def bëri na yoo xam ne waxuñ ko te loolu soo gisee tey ñu mun ko wax fii nii bés bee tax tey duñ doxalee lu muy def yàlla moo tax mu koy def Kaolack yeewu leen tey wax na ko fi bi ne tey économiquement tey dëkk bi waroon na see gis boppam ndax sous-région bi yëpp Sidi moo leen taxoon jóg ñu ñëw pour ñëw Kaolack soo kon waroon na ñëw. Kaffrine woon na ñëw Diourbel woon na ñëw ay Toubacouta woon na ñëw parce que fay nag feneen ñëpp ñëw jakataay gis seen bopp maire yi jaab caab gis seen bopp auberge yi gis seen bopp ak ñeneen ak ñeneen ku nekk nekk fi nga nekk gis fa sa bopp ñu dem stade dem stade ñu dem fële dem fële ay waay cri Siri lu tax kenn wu ko ku defu dara doo dégg dara dama ne wax ji buñ ko nëbbu yàlla nag moo am doole yàlla moo am doole waaye gis nga pexe yu ñuy def nii def seen intoxiqué yi nan ko ba nan bàyyi booy mu liggéey te xam ne yàlla moo fi nekk maxu nag kenn mënu ko faxasal ndax dëkk bi ñu nekk nii ay ndaanaan ñoo ko dalal ay ndaanaan na ko dalal mu ñëw am yar ak teggin di liggéey liggéeyam nan bàyyi yàqalaate bi ak pexe yu def di yàq nan bàyyi yàq bi ñun nag dafa am lu bëri loo xam da nga koy seet sax parce que ju du leen topp si yu bëri ñam neen ñam neen benn yoon yu may wax yéen ñuy toog fii xam ngeen lu may wax ñam neen te boobu ñamee am nu mu demee bii na soo gisee nu mu demee mooy sport bi sax mu neex la ñoo amul fulla parce que tey club équipe yëpp taxaw ñu ayta entraînement yi si ñaata fan sport bi mel ni mel ni warul wax dëkk bi bekkoor mënu sa am équipe ligue ñu jël ñu jël suñu police bi nga xam ñëpp ko soxla ñu jël ko ñu ne da nga koo téye pour fukki fan ak juróom xaw ma ñaar fukki fan ay waay ay waay kaw la kenn ñu am fulla siiri kenn mënu laa téye yàlla mooy maye